Euh, maa ngi tudd Mamadou Thiaw nekk superviseur FERA Kayar. waaw sunu jafe-jafe bi lu ko waral mooy ñàkk payoor mën naa ni depuis mois de juillet deux mille vingt ba mais deux mille vingt quatre vraiment joxuñu dara te toujours nag dañ doon dikk am yaakaar si ñoom élément yaa ngi nii nekk si ginnaaw ñii ay jàmbaar lañu ay ndaanal lañu. parce que ku la nangul toogal fukki weer ak benn di leen liggéeyal deful la benn pression kooku patriote la bëgg la dëkkam euh, bi ñu demee ba juróom benn weer si liggéey bi am na ñoo xam ne dañ noon dañuy taxaw grève parce que mëntuñoo continuer mais toujours leader yi nekk si kanam mooy ñoom aji ñi ñoom Roxe ñoom Babacar ak ñu ñuy tax ak ñoom ñi toujours dañ doon dalal seen xel danañ ñu fay ñu am yaakaar bu wér nag si ñun ñu dolliwaat si ñetti weer muy juróom-ñeenti weer gisuñu dara bi koor gi jub si ñu dem si kilifa gi muy monsieur le maire waxtaan ak moom ni ko monsieur le maire de sa éléments yi sonn nañu lu ñu bëggoon si koor gi ñuy duggu dañ lay ñaan rek nga am loo teg seen loxo ñu ànd ak moom si koor gi mais defuñu dara ñu dem a dem a dem ba koor gi bëgg a jeex gisuñu dara. Lyon Lyon de ñu dem ba commencé def benn sitting ñëw fii parce que yàq nañu réer nañu amatuñu fu ñu jëm kon nag li am solo mooy nañu revendiquer sunu droit bi def sitting ñëw fii si maire bi yuuxu yuuxu préfet moo ñu woo demande ji lan moo waral loolu ñu ne ko lii la mu ni yéen ngi seen plein droit mais dama leen di ñaan puisque yéen ngi seen droit dama leen ni ñaan rek ngeen arrêter seen sitting man dina fa ñew si ngoon gi kon nak préfet la mu waxoon def nak on le remercie profondément le préfet le sous-préfet de Kër Moussa on le remercie parce que ngone gi déplacé wu na jël na autom ñu ka rencontré ñu ñu wax ko suñu mbébét lool mom amna ci si bi ñu foogoon ne loolu dina lijjantiwu mais dara wu ñuy liggéeyat si juroom ñent wër yoy ñu tégaat si yenen ñaar wër muy fukk wër ak benn ñuy muñ rek ñu ne nak lu ñuy defaat duñ dem ci kenn nañ dem gus monsieur le maire waxtaan ak mom parce que trop c'est trop man maa wo téléphone jëluma je le dis de manière ouverte ma envoyé que texto ni ko suba monsieur le maire bëgg na ñu ñëw ci maire bi pour rencontrer la ñu ñëw fekk ñu fi mu dem waram premier magistrat de la ville mo am man nak gaay puisque nak yoon amna ci si dëkk bi nañ leen dem si yoon nañ leen dem gis monsieur le commandant moy kay taxaw commandant bële taxaw ñu nañ koy sante di ko parce que keroog waxna wax ju daw yaram neena man de suma yoron xaliss da daa jox leen am ñi la an àndaloon ñi mënañ nek témé commandant ngi dee taxaw léegi nak lo leen bëgg ñun ko dañu bëgg marche mu ne marche sen droit kon dañ leen ko yombal ma jox ko kayit bi mu bind si lu bind jox ma ne dama yobu sous préfet ba ma demee aussi gi sous préfet son adjoint sec bi ma waxtaanee ak moom aussi mu kontaan lool suñu ki autorisation bi daa len ko yombal kon nak ñun autorité yi nek fi dans le département dans l'arrondissement amuñu sen fay muy le commandant de brigade bi fi nek léegi di jappalé ki xamné dafa dem congé ñong koy sante di gëreum di gëreum aussi le sous préfet lu ñuy yombal suñu marché bi léegi nak lu ci dess il faut que ñu yeglu parce que bu doon fukki weer ak benn sax monsieur le maire jéem na def dara sax a xayrun mais wenn wala la ñu indi feera moo leen war a fay. waaw léegi yéen feera xam nga ñun mairie la amal affaire ñun mairie lu ñuy lié ak moom contrat moo ñu lié ak moom mairie lu ko lié maintenant ak feera convention la. xamuñu feera de. ñun suñu jógoon dem feera dañuy te seen bunt. mais toujours ñoom lu ñuy digal dem nañu feera kii li gën a garaaw nag li gën a garaaw li gën a taal taal bi mooy veeyu tabaski nga xam ne ku nekk na ngay xalaat sa kër. ñu ñëw waxtaan ak kilifa gi man lu leer laay wax bu ñëwee waxtaan ak moom mun ma mercredi bii di ñëw dinaa def lu tuut naa leen woo ñu toog fi ma def benn point de presse pour yëgal waa Sénégal ka ñu leen. mais mercredi li gëna metti moy mercredi bu ñëw fekk ñu fi monsieur le maire. lolo gëna metti je le dis hautement mercredi fekk ñu ko fii. waaw léegi dañuy xaar ba def sitting ba xam naa sa kaw bu ko yëgee xam ñu fi nekk am nañu xel ak pour set pour ak Sénégal ñun am nañu bu sitting bi buñ le président son excellence Bassirou Diomaye Faye xam naa danañu dégg te nañu jàppale am nañu yaakaar si moom Kayar dëkk koom-koom la Kayar géej gaa fi Kayar mbay maa ngi fi mu nekk mamel yu am solo kon Kayar mérite wu lii lu mu mérite mooy dëkk bu set wecc la mérite oto mbalit yi daw si biir dëkk bi ñuy jël mbalitu dëkk bi gars yi bale tali bi mu set loolu Kayar mérité ñu ne suñu objectif ak ñii ma àndal mooy rendre Kayar très propre bu bokk si dëkk yi gën a set si Sénégal mais nag bu dee kilifa yi nag faalewuñu la kilifa yi xooluñu la kilifa yi weguñu la yooyu nooy def da ngay yëngatu nag toog woo ko xam ni moom réew mi ñu ne ko nag ñoo ngi lay tàllal solo nga dimbal waa Kayar dimbal mu njëkk mi nag mooy fay ñii mooy dimbal mu njëkk bi deuxième dimbal mi nag aussi mooy oto mbali bi doon daw si dëkk bi damuy dëgg oto mbalit bi ñun ñëpp gis nañ amoon na njariñ si dëkk bi damuy dëgg ñun kër yi rek 2500 3000 la nga fay par semaine léegi nak un mois nga bëgg a fay 12000 francs mbalit ak yeneen ak yeneen na kon nak foofu dañuy waxtaa dañuy dañuy euh, demande waat au présent mu wax waa UCG ñu jàppale ñu indil ñu auto wutal ñu ay manœuvre ñu mën a génne mbalitu Kayar waaw waaw pour l'instant daal vraiment veille tabaski moom ba ñu ñëwee sa àllarba dañ ñu suba alxemes ak àjjuma au plus tard da ngeen jot seen xaalis ba léegi joxuñu dara. amuñu yaakaar amuñu dara jotuñu dara. ba léegi tous. onze mois lala. juróomi dërëm laa la wax laaluñu ko bala dërëm dërëmu Mali sax laaluñu ko. te ñun jàpp nañ ay ndax mbaay la. indi nañu benn référendum ba yéegal nañ ko ba jox nañ ko secrétariat bi. maire jot na mais il faut gars yi génn parce que gars yi bu ñu amul espoir ñu toog si réew mi xale yi dañoo am désespoir moo tax ñuy mbëkk mais mbëkk moo xam da ngay xalaat sa bakkan siy des mais ko ko xalaat affronté ko xam nga da ngaa jaaxle. akay dëgg. ah jaaxle de moo am de bu xale yi jaaxlewul dañu toog peut être ñu fi nekk mën naa am ñu changé bu ñu changé xale yi toog bu ñu changé wul rek gars yi démarché rek. waaw waaw ndax dara. moom. 11 mois. Ça l'air, 11 mois. je suis euh, euh, superviseur de FERA. Le de cette marche est que nous avons vraiment des affaires, nous avons affaire à des gens qui ne respectent, pas leur personnel, surtout les gens qui travaillent dans le domaine de l'assainissement. Ça fait 11 mois de cela que nous courons derrière nos salaires et on ne parvient pas à recevoir nos dûs. On a fait toutes sortes de marches pour vraiment obtenir notre salaire, mais jusqu'à présent, on court derrière. Rester 111 mois, sans salaire et travail. Donc, si on peut le dire ainsi, nous, sommes, nous, aimons car. Si on n'aimait pas car, on pouvait rester. si on travaillait, on pouvait travailler trois mois et arrêter. Mais quand on, quand, on parvient à travailler 11 mois, et jusqu'à présent, on ne nous a pas payé, vraiment, nous aimons car, nous aimons la propriété de car. C'est pourquoi nous avons organisé cette marche. Puisque la mairie, toujours, qu'est-ce qu'elle nous dit Non, elles ne sont pas à mesure de vous payer. C'est Ferra qui vous paye. Donc Ferra, c'est l'État. La mairie fait ses responsabilités. Voilà. Parce qu'il y a d'autres maires, ce qu'on ne peut pas comprendre. Il y a d'autres mairies que Ferra paye. D'autres mairies que Ferra n'a pas payé. Mais ces maires-là sont décarcassés pour faire quelque chose, pour faire un geste, pour aider au moins le, le, le, nettoyeur. Mais la municipalité de Caire n'a fait aucun geste à ce sens. Et nous le déplorons. Ah Parce que quand on travaille pour Car, on travaille pour la propriété de Car. Nous ne sommes pas partis à Dakar pour nettoyer Dakar. Donc quand Car est propre, qui, est bénéficiaire C'est la mairie. Qui on va C'est qui Le maire d'abord. Donc le maire devait être à nos côtés, devait nous soulager, même s'il ne nous donne pas de l'argent il devait être à nos côtés, nous soulager et même nous encourager. Mais quand tu travaille, tu ne vois même pas une autorité. À part ce boucher-là qui est là, Moucher Gay, souvent il vient, il prend quelques pelles. À part lui, on ne voit personne à nos côtés. Les démarches. Nous avons entamé des démarches depuis lors avec le maire. Nous, on est allé voir même ses amis, les amis qui sont à côté des maires pour en parler. Mais ces gars-là, ils n'ont jamais eu gain de cause avec le maire. Il y a une personne qui a sa femme avec nous. Qu'est-ce que le maire lui a dit C'est ta femme qui est là-bas, c'est pourquoi vous les défendez. Et ça, est-ce que c'est une réponse Ça, c'est pas une réponse. Ah une réponse, c'est quoi Je vais convoquer ces personnes, je vais convoquer ces pères de famille, ces mères de famille, et essayer de discuter avec eux pour trouver une solution. Y compris les enfants, les enfants de 1 an, 2 ans. Si c'était seulement les femmes, les hommes, mais les femmes partaient avec leurs bébés. C'est parce qu'il y a le désespoir total. Ah C'est pourquoi ils partent. Quand il y a désespoir aussi, il faut trouver une solution. Donc ces pères de famille qui bravent la mer, qui bravent ce danger, s'ils avaient des solutions, ils vont rester au Sénégal. Ah, jusqu'à présent, nous n'avons pas connu de promesses. Rien du tout. Jusqu'à présent, la mairie, ce que nous dit, M. Ibrahim Gueye est là, témoin, je l'ai entendu hier parler, euh, de, euh, euh, sur euh, euh, un, groupe en disant que la mairie n'est pas responsable. Merci beaucoup. <laughs>